waaw ñu vraiment ñu dalal jigéen ñi sëñ Fallou yi laa koy tuddee vraiment muy ñoo xam ne bu bis sëñ Fallou amee vraiment dañ ciy taxaw jàpp ci def ci wax ci vraiment ñu dalal soxna Fatou Mbaw muy koo xam ne kenn dootu ko présenté ci sénégalais yi nekk fii ak bépp émigré bu nekk en Argentine soxna Fatou ñu ngi lay siyaar. waaw mais di la laaj si yëg-yëg ci bis sëñ Fallou bi ngeen def seen yu baax nag vraiment ñëw jàpp ci bis bi jàpp ci combat bi vraiment loolu loolu sentir. dëgg la ci ndax bi sëñ Fall la luñ ci dem rek xeem nañu di ñaan yàlla yàlla may ñu at yu baree baree bari ñu di ko fekke si barke sëriñ Touba Mbacke di ñaan yàlla lépp lu fi fay mbébét rek ak lépp lu fi nit bëgg rek yàlla defal la ko képp kuy móodu ku nekk ci biir Argentine bi muy góor muy jigéen yàlla may la lu sut sa njort si barke sëriñ saalu man loolu laa leen ñaar wax ji nag mënu ma koo guddal ndax man damaa desee mën a wax ci mbooloo maa ngi jéggalu maa leen di yéen ñëpp di leen ziar waa Sénégal ak sénégalais yi nekk ci biir Argentine ñëpp suñu càmmiñ yi suñu mag ñi fi nekk ñëpp daal ñu leen di nuyu di leen delloo njukkal di leen ziar ci bis bi. waaw vraiment muy kàddu yu am solo di kàddu Fatou Mbow. vraiment ñu dégtal suñu beneen jigéen boo xam ne nii vraiment ñu koy wax Mame Penda vraiment di di taalibe Serigne Sëñ Fallou vraiment ku bëgg Sëñ Fallou vraiment nga def say baax nag vraiment ñëw jàpp ci combat bi ñu lay laaj lan nga mën a lan nga lañ nga lan nga gis ci ci ci ci bis bi ak lan nga sentir. ndax ñun moom bu ne màggalu sëñ Fallou rek euh, dama naan ñun lañ ko waxal. ndax xel giñ ci xel. Mhm. macha allah sëñ Fallou moom waayu ñëpp la waaye kenn ku nekk da nga yaakaar ne rek yàgg na xel ci moom. waa ñu ngi nekkoon ci màggal bi waa toggu añ yi macha allah toog reer yi dara manqué wul lépp nag ci xéewalu baayu mbeen rek di ko màggal fii ci Argentine di ko ñaan yàlla di ñaan yàlla yàgg ko fee màggal di ko màggale ji Touba ci suñu dëkk. macha allah wax dëgg yàlla di ñaanal tamit waa fii yàlla dafa leen ay xéewal yu saawaan baawaan ndax wax dëgg yàlla màggal bi def ci taxawaay boo xamante ni moom euh, am na Pastef macha allah wax dëgg yàlla moom ñu ngi sant bu baax moom sëñ Fall moom. buñ ciy wax fii ba suba duñ doyal ndax sëñ Fallou moom mooy suñu lépp. mooy sëñ Fallou mooy suñu sëñ Fallou. waaw gis nga kàddu yi am na solo moom Penda. ñu dajal ci beneen jigéen boo xam ne vraiment yaa ko jàpp na ci combat bi comme ni ñu koy taxaw na ni mu war a taxawee vraiment ni nga def rafet na amul lu ci yàqu vraiment ñu lay laaj lan nga gisee bis bi vraiment ak ngeen woote ñëpp ñëw wuyu si leen xam nga yombul vraiment yan yan sentiment ngeen am ma jaral ko nekk anglais nekk sama xarit koy woo ak chaque fois mu nekk sama xarit daal kon may ñaan bis bi yàlla mu fekkee ay at yu bare bare bare dund nag ba dem Sénégal ba benn Sénégal ak ay xéwal saawaan baawaan ñëpp baax sëñ Fall baax waaw mais cant ak gërëm ñeel na la vraiment jàpp nga ci combat bi ah merci beaucoup vraiment ñu dalalaat beneen jigéen boo xam ne fii ci Argentine kenn dootu ko présenté vraiment mu def yu ñuulam yu nice ñëw jàpp ci bisu sëñ Fallou bi vraiment loolu ban yëg-yëg la lay def ñëw jàpp ci bisu sëñ Fallou. waaw Badou merci kontaan rek bisu sëñ Fallou bi moom si suba ba tey ñu ngi fi gis nga ñun ay taalibe taalibe lañ daal ñun daal ñoo ngi nii si suba ba tey taluñu solu ñu def dara nekk rek ci liggéeyal sëriñ bi di ñaan yàlla. ñu fekkee koy at yu bare bare bare bare bare si barke Serigne Saliou ngeen woote ñëpp wuyu si leen ñëpp bàyyi seen i mbir wuyu si leen loolu lan lay def ci yéen parce que dëkk bi nag problème mu temps la am parce que immigré temps mooy mooy mooy mooy alalam mu bàyyi temps am ñëw wuyu si leen ci bis Serigne Fall bi lan leen def waaw kontaan rek xam ne ñun sénégalais ñun ñëpp benn lañu te xam naa ne tey bëggante nañ nekk ñu suñu dëkk waaye gis nga lépp lu xew dañuy regroupé wu bokk nday bokk dox ko macha allah loolu moom loolu moom sénégalais la moom. waaw vraiment ñu bàyyi la nga wax sa dernier moo sant seen invité yi nga xam ñëw nañu. waaw ak yéen yéen ñi nga xam yéen bokk bis bi. waaw Badou di kontaan si ñëpp taxawaayu ñëpp di kontaan si góor ñeeg si jigéen ñi mag ndaw tey moom gis nga liggéey sax daanaka tey moom genre fête nationale lañ ko def bu Sénégal kenn liggéeyul ñëpp ngi si màggal jàpp liggéey suba. suba ba ngoon ñoon ah, vraiment sant nañ la gërëm na la mais jàpp nga ci bis ah vraiment li nga fi nga génn nice na trop ah. merci ci ay mbiram waaw moo tax nag ñu bëgg cee takk rip barkeelu ci parce que vraiment màggal yëpp màggalu màggalu Serigne Touba la waaye bii nag dafa spécial ci ñun franchement parler li olof Njaay naan ragal pété day ra tax a ragal euh, comment se dit day xane wërsëg waaw loolu nag moom amuñu si dara lu ñuy ragal suñu pété bi amuñu ci lu ñuy contrôler amuñu ci lu ñuy xalaat dem ba jeex lépp loo xam ne daal suñ ko defee ah gan ñi kontaan bu soobee yàlla yonent bi ñi ngi ca ña ngay defar salba ba mu rafet di préparer ay ceebu neex suñu jigéen yi ñoom ñëpp jóg Argentine kenn desul waaw màggalu sëñ Fallou moom boo demee ñii nga ca salba ba ngi ci waañ bi ñëppay àndandoo góor ak jigéen jàpp ci vraiment kontaan nañ trop. biñ ko dalee def ak léegi defe naa suma juumulee mi ngi ci sept ans mais ñi ko daan teewe rek ñoo koy teewe ba tey waaw ñoom ñëpp vraiment kontaan nañ trop di leen di leen di leen ziare di leen ñaanal ñu fekk ko at yu bëree bëree bëree bëree bëri ci barke Serigne Bamba Xaadim Rasul ñu nekk fii ci euh, waaju lañ koy tuddee wala ñu nekk ci benn kuréel benn béréb boo xam ne waa ko Serigne Fallou yi ñoo ci bendel euh, Sénégal yi di ci bendel bépp jullit fii ci Argentine ñu teew cee ko xam ne vraiment kenn dootu ko présenté ci euh, ci waa kër sëñ Fallou yi fii ci Argentine sëñ Fallou Thiam mu dëppee ko turam waaw sëñ Fallou ñu lay nuyu di la wax ne sa premier sentiment ci bis bi. waaw kontante kontante kontante maa ngi leen di fay sa premier contentement ci bis mooy mooy am mbégte mbégte bu baax a baax a baax a baax a baax ndaxte lii kaw na suñu ndox woote nekk Argentine di teewal sëñ bi ci ci. di ci teel seen bu baax a baax a baax a baax ci kaw loolu ñu woote tey jii ci màggalu Kazu Rajab sénégalais yëpp mbokk taalibe ñëpp wuyu suñu tey jii di teewal bis bi loolu contentement ak mbégte rek kese kese kese lañ ci am. waaw sëñ Fallou mu mel ni bis bi dafa mel ne dafa dafa coïncide ak bisu euh, rañaan bi. mu bis bi nga xam ne ñu ngi koy wax ca ca ca Jérusalem ci porte yi nga xam ne porte l'islam la ci ci ci kaw suuf bis boobu la yonent bi rañaan euh, jokk ak suñu borom. bis bu tombé Kazu Rajab muy bisu Serigne Fallou bi mu gënee àdduna vraiment loolu ban yëg-yëg la lay def ak yan yan yan jàngat nga ci am ak yan ngënil la la bis bi làmboo. di kenn ci yoonu murid di kenn ci yoonu bi da kenn ci yoon wi yàlla def man mii tamit ñu duppee ma bi ma ciy am yëg-yëg ak contentement bu baax a baax a baax baax baax sëñ bi daal kenn la ci ñun daal. waaw waaw waaw yëg di ko dund daal kenn la ci waaw vraiment kenn la ci ñun muy muy kaddu yi sëñ muy muy kaddu yi di kaddu yoo xam ne vraiment boo bu ko wax sax nga sant ni mu ngi yëg sëñ Fallou waaw vraiment ñu teewal ak beneen mbokku taalibe ginnaaw bi ñu jógee ci sëñ ñu teewal ak sëñ Jibi Seck sëñ Jibi ñu lay siyaar di la wax nga jox sa premier présentement ak sa premier yëg ci bis bi ak organisation bi ni ngeen ko doxalee di leen di gërëm di leen sant yéen ñi fi nekkal télévision Touba Argentine TV Touba Argentine TV wax dëgg yàlla gis nañ seen taxawaay euh, lépp nga nekk si la seen rajo bu yokk ba ngeen yëg ko dëgg yàlla parce que gis nañ ñu ne koy dox si ak taalu bi am ma dëgg te nag ku waral bis bi di seen fàll dañu loo ko labal mu fay la dëgg la waaw ñu nag suñu yëg si bis bi mhm. daanaka mooy lu ñëpp yëg rek li ko dalee Touba ba fii parce que seen fàll moom bisam bii maanaam euh, lépp loo xamante ni def nga ko ci rek moom moo la koy fayal. waaw vraiment ñu teewlaat ak beneen mbokku taalibe moom mu bokk ci organisation bi ci wàllu bernde yooyu ñu lay nuyu di la siyaar di la wax sa nga joxe sa première impression ci bis bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan ñëpp ci bis bi ci borom bis bi ci barke Alaaji Fallu mu faj aajo yëpp. di bëgg ñëpp di ziar di kontaan bu baax macha allah lépp mat na macha allah wàllu foog nga woote nit ñi si la ak temps ni mu seere fii ci Argentine vraiment nan lay nan la leen loolu di def yéen nga xam yéen a chargé bi. vraiment nga woote ni wuy si la dafa neex si xol parce si te ñëw teew ñu ngi leen ñaanal bu wér am mbégte bu baax di ñu dalalaat beneen beneen beneen beneen mbokku taalibe Cheikh Ama Cheikh Abdoul Fatah kooku moom vraiment ku nekkoo ci waa Kër Sëñ Fall ko bokk mooy répété wax vraiment ku tedd gi ñu ngi lay siyaar di la di la wax ne sa yëg-yëg ci bis bi nu lay def. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Touba TV Argentine ñu leen di nuyu di leen siyaare bu baax di siyaare di jiital si nuyoo bi siyaare Serigne Sidi Muxtaar min tudde bis bi. dëgg la di siyaare mbooleem mbokki julli di nekk fii yëpp di si jiital Serigne Sidi Muxtaar mi mu waxoon léegi. xanaa bis moom li ñuy def moom mooy saa su egsee rek dañuy xam ne suñu bis ñëw na bisu ñëpp ñëw na bisu islam ñëw na ndax moom moo ne woon maay l'islam maay Sénégal. dëgg la. Hmm. waaw waa mais kooku waxoon ne mooy l'islam mooy Sénégal bisam tombeeg bisu rañaan bi di bisu yonante bi vraiment loolu ci baatin wala ci nu mu xamul nu mën a dégtalee lan yan jàngat nga ñu ci mën a jox ak yan tegtal nga ci mën a def ci bisu tey bis bi li ma waxoon na maay maay Sénégal maay euh, islam mooy bis bi mu ganee àdduna dane yonent bi dana war rek mën a mën a maama teew daal dëgg la si olof ndax dafa ko dëgg la yonent bi dafa dem ma daal di teew yonent bi dafa dem mu daal di teew maanaam dañ ne dana yool nga a war maanaam teew léegi ñu mën a jàpp ne sëñ Fallou sëñ Fallou mooy yonent bi waaw maanaam si dégginam si dégginam doon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dëgg la euh, si léppam si waxtu si cerso si mbindi si lépp daal. dëgg la waaw sëñ bi ñu bàyyi la nga def cant ak cant ak gërëm ci bépp Sénégal bi nga xam ne wuyu si na la ci bis bi nga xam ne naam du wuyu si sax ndax bi su Fallu bisu la ñu bàyyi la nga def ay sant ak ay gërëm. waaw ñu leen di gërëm di leen sant bu baax a baax di wax ne. Serigne Fallou moom moo ne dëgg la xam ne lebal nga ko rek la sëñ dëgg la jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm. dégtalaat beneen soxna soo xam ne kenn dootu ko dégtal ci euh, bisu Serigne Fallou ñu koy wax soxna soxna Soda Thiam vraiment muy ku pasté fu ci bis bi di koo xam ne ni vraiment soxna soxna si ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la jox sa wàccuwaay ci bis bi waa soo soxna vraiment bokk ci ñi liggéeyal sëñ Fallou lan la leen def. waaw bu may liggéeyal sëñ Fallou lu ma li may def mënu ma ko sa wax tamit nga woote nit ñi wuyu la vraiment bis nga xam heure nga xam ni mu seere fii ci temps bi ñu nekk ak dëkk bi ñu nekk en que bii de woote ñëpp ñëw ñëpp bàyyi seen bis bis bi tombé bisu bi comme ni ñu koy waxee ci yonentu yàlla Muhammad vraiment mu dem gis suñu borom Mawlana subhanahu wa taala vraiment bis boobu di seen bisu sëriñ sëñ sëñ Fallou. vraiment moom mi waxoon ne yonent bi daal dañ ne lay rek mën a cëpp vraiment kooku ngeen koy teewal fii ci bis nan leen def. waaw yëg-yëg ci am mooy fi meeku ñoo dara dul berndeel def ñi ak yëg-yëg am mooy ñii nit ñi ñëwee teew ñu fas yéene leen berndeel ba màggal di jeex ci Barça Mbaye ñeen la bàyyi la nga nuyoog ñi nga xam ne nii vraiment ñoo la teewal ci bis bi ñoo leen teewal sax laay wax. di leen di fi ñëw at yu bëri dama dina moom li ñuy fàttali moom dañuy dañuy day wane ne Serigne moom liggéeyal na askan wi yëpp askanu Sénégal surtout ñun Modou Modou maanaam lii chaque jour dañuy wane ne daal maanaam sëriñ tubaa moom maanaam ay mbiram moom tey gën di jëm kanam nag duma ma sa dellu ginnaaw li ñu yëg xanaa sant Serigne Touba sant Cheikh Mamadou Fadal bu baax a baax a baax waaw bi ñu mayee suñu borom may ñu waat ko ci jàmm di ko màggal chaque année ren ñu gis ci loo xam ne dañoo yéem lool waaw suñu fàllu wanaat ñu boppam bu baax a baax a baax a baax ci bisam bii ndax ku ne xam ne ne jamono yi daanaka soo xoolee dëkk bi xawoon na jaxasoo lool ñuy wër fu ne pour bëgg fu màggalee bisu suñ fal bi suñ fàllu nag ay mbiram moo koy jàppandil boppam ndax ganaaw bi mu doonee bi suñ tuwaa doonee waajuram wëlbatiku moom moom mu doon ci yoonu murit loo xam ne maanaam kenn nattable wu ko ci yoonu murit kon bisam heure bu ñëwee rek day day day saa su ne rek day gën di kawee bi mu xëyee wax dëgg yàlla barki démb ba léegi mbokki jaam ñëpp ñi ngi si ñi ngi bàyyi seen liggéey bàyyi lépp lu ñu doon def ngir nekk ci bis suñ fàllu ngir mu jag te suñ fàllu jagal na ko comme ni ko waa Sénégal di feetee fépp di ko feetee ñun noonu lañ ko feetee wala nu ko raw ndax Argentine ku ne xam ne ni ay jàmbaar lañ ci yoonu Serigne Touba ñu ciy dox bu baax a baax a baax seen kémtulaay gàttan ba tax na lépp lu woo xam ne rek luy taaral bis rek nekk nañ ci def nañ ay ceebu yàpp ak ay ceebu jën ak ay ceebu ginaar waaw maanaam lépp loo xam ne rek luy xeetal taaral bis bi caagiri café maanaam màggal nañ ko daal Serigne Fallou daal won nañu boppam ñu ngi santaat bu baax baax a di ñaanal mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo i dërëm def ci seen i xéwal Serigne bi yokku leen kaweel leen ba Argentine fépp fu ñuy dégg ab murit rek ñu dégg leen fa ndax ba dëgg yàlla tey ku gis mbooloo mi ni dajee nii rek nga xam ne lépp sedd sedd xol xol seddati na daal ñu ngi sant Serigne Touba bu baax a baax. ñu ñu ñu teewal waa kër Cheikh Fall vraiment teewal ki nga xam ne mooy jëruñu Cheikh Fall fii ci réew mi nga xam ne kenn du ko présenté ci Amérique latine laay wax vraiment ñu koy wax Assane Assane Baye Fall tur yi sax kenn xamu ko ndax Assane Baye Fall rek ndax bëgg Cheikh vraiment sëñ Assane ñu ngi lay siyaar di la wax ne sa yëg-yëg ci bisu sëñ Fallu bi bis bi nga xam ne ci la ñuy wax ne ku tedd ki di Seydina Mouhamed ci la riñaanoon vraiment gisee suñu borom mu tombé bisu sëñ Fallu vraiment sëñ Assane jëruñu Cheikh Fall fii ci Amérique sant yàlla julli ci yonent bi di sant Serigne am mbégte lool ndax boo xoolee ca Sénégal màggal gi ñu ngi ko tuddee maam Cheikh Ibrahima la dëgg la kon nag euh, dañoo delloo buum ca mbooy mbooy ga mu mel ni diggante Serigne Fall ak maam Cheikh Ibrahima mm-hmm. toog xalifa Serigne Fall mm-hmm. maam Cheikh Ibra Fall ay maamam muy sëñ abum sëñ Fall dëgg ay maamam maam Cheikh dafa amoon taalibe bu ñuy wax sëñ Malick Niang sëñ Malick moomu maafaañ leen lañ ko gën a xamee mu nga dëkk ca daaru tànneefu diggante Gosaas ak Njaareem dëgg la dafa meññ ñetti leer ku ñuy wax soxna Ndey Ñang soxna Aminata Ñang soxna yi soxna Ndey Ñang soxna Aminata góor ñi mu am sëñ Ngunda Ñang sëñ Seex Ñang yàlla dogal Cheikh Moun Moustapha Fall taawu maam Cheikh Ibrahima Fall am na sëñ Tuubaa soxla woon xëy na pour ñu gàttal ko rek ay li may wax ñu xam histoire bi xam ne noonee la demee dëgg la ndax sëñ Tuubaa ay saatu la soxla woon saatu yi ni waxoon mu wax ko sëñ Modou Moussa Mbacke bi mu ko sëñ Modou Moussa bi mu ko sëñ Modou Moussa sëñ Modou Moussa wax ko sëñ Fall sëñ Fall wax ko Cheikh Modou borom dogalee loolu mu dem daaru te fekk fa sëriñ Mafa ñëw mm-hmm. Serigne Mafa Niang xamal ko ne ko saako yi de dama la koy jaay mu ne ko loo ma koy jaay mu ne ko xanaa nga jël ci sama njaboot bi kenn loolu laa lay jaayee saako yi booba ku ñuy wax soxna Ndey soxna Aminata soxna Mariama Niang mu jël soxna Aminata Niang soxna Aminata ñaari leer la ca am ndax ba mu ko joxee saatu yi bi mu demee dafa yëkkati ñaari saatu jox ko maam Cheikh Ibra ne ko boo demee nga ma ko ko bi Cheikh Rafal jotee ñaari saatu saatu yi ne ko ah Malick ñoom moom gën a ngott ñaar rek waaye nag ñaar barke ne ko ñaari barke ñaar yooyu mooy soxna Aminata Niang mooy soxna maam say Fall sëñ Mour Aminta soxna maam say moo meññ Serigne Abo mi toog xalifa Serigne Fall tey nekk xalifa Serigne Fall kon eh, xëy na sikkar seeg yooyu moo tax sax mënuñu ko leer waaye nag li ñuy wax lu ñu xam la te it mën a leeral ba àdduna sépp dégg ko la muy histoire boo xam ne histoire bu raar la histoire boo xam ne ñu bëri xamuñu ko waaye nag diggante maam Cheikh Rahane Fall ak Serigne Fallou kii toog xalifa sëñ Fallou mooy Cheikh Ibrahima sotti ndax soxna maam say mi ko jur moo sëñ Mouramin ko mi njëkk a toog sotti Cheikh Ibrahima ñoo bokk wenn waajuru góor ak wenn waajuru loolu lu ma ko sëkk ñu def nag ñu di sant bu baax mm-hmm. di sant Badou Ndiaye ci mm-hmm. président Touba Argentine TV mm-hmm. bi nga xam ne àddina séppit ñu ngi koy seetaan kon nag du def lu dul rek jël kàddu gi delloo la ko am mbégte lool nag barke maam Cheikh waaw waaw jëriñ ñu seerafal fii ci Amérique latine ñu ngi lay siyaar vraiment di am ne kàddu yi amul ñu ci teg raw muy kàddu cant comme ni nga ko waxee di kàddu mbégte goo xam ne bi nga bi nga la ci bopp Baye Fall yi ba léegi gis nañ doxin bu am solo bi nga xam ne yéen a koy dox vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal Serap Fall teel la sa say tànk vraiment ba nga mën a liggéeyal Serap Fall li nga jublu vraiment ñu ngi leen di siyaar bu wér a wér a wér Baye Fall yi siyaar nañ leen a Baye Fall yee siyaar nañ leen Baye Fall Bamba ko moom moom réew Bamba moom eh! réew mi Bamba mooy kii ko moom jërëjëf Serigne mi Bamba mooy kii ko Bamba mim réew Bamba ko moom jërëjëf borom Touba réew mi Bamba mooy ah, ñëpp danañ bëgg moom ndax bisub tey moom bisub sëñ Fallou la te ku ne xam ne ne sëñ Fallou moom bu xewlee àdduna sépp da ngay xam ne bisu bisu sëñ Fallou ndax su booba léegi gan gan ñi ñenn ñi wàññeeku nañ dem nañ ca saal ba ñun ñu ngi fii nii ci xamante moo wàññi ànd ceeg suñu jigéen yi ak suñu yaay ku ci mel ne ñoom mère day xari ñoom mère Safi ak suñu jigéen day su Thiam ak ñoom maam Penda ak suñu papa Bouba Thiam ñoom ñëpp ñu ngi ci waañ wax dëgg yàlla jàpp ci liggéey bi ak ñeneen ak ñeneen ak suñu jëwri suñ fàllu laam suñ fàllu suñ fàllu Thiam Saliou Faye Daaba Ndiaye ñoom Baye Sall ñoom seex Cheikh Sarr Mbaye Amet ñoom ñëpp daal waa daayira bi yëpp wax dëgg yàlla jàpp lépp dem ba léegi ñu ngi ci liggéey bi taxawaay taxaw bu rafet daal waaw góore murit rek niñ koy waxee saa su ne Ah, di ko partagé àdduna bi yëpp xam nañ tey bés bu ku nekk am na yëg-yëg boo xamante ne daanaka yi koy yëg bu baax ci bés bu sëñ Fallou bi ah xam naa niñ koy taxawee fii si Touba Argentine àdduna bi yëpp noonu lañ koy taxawee fépp ah ñun nag ñu ngi fii ak euh, ci daayira xidma bi nga xamante ne liggéeyal Serigne Touba bi nekk fii ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi ci waañ bi am na ñeneen mbokki taalibe yoo xamante ne ñun ñëpp ñoo bokk nekkandoo ci xidma bi ñee ñu nga ca saal ba fañ koy defee ah nekk ci liggéey ba waaw nekk ci liggéey ba ñu ngi nii ci waañ beeg yëpp fii ñuy toggee fa lañ nekk nii ah di ñaanalaat tamit yaa ngi dégg suñu xarit suñu wasila suñu sëriñ sëñ mu eh, sëñ Sidi Muxtaar Mbacke ñu gën koo xam sëñ sëñ Cheikh Mbacke mu sëñ sëñ Abdou Aziz mu sëriñ baaram mi nekk ak ñun ci réew mi nga xam ne lépp lu ñu nekk tamit yaa ngi dégg mu ngi ñuy soññ bu baax a baax a baax si liggéey sëriñ Touba bi waaw di ko ñaanal bu wér a wér a wér di ñaanal mbokki taalibe yi nga xamante ne ñoo nekk fi Touba Argentine yàlla suñu borom defal leen ay boole ñu bennoon ñu liggéey Serigne Touba bi nga xamante ne tamit jamono bii moo nekk suñu moo nekk suñu kanam nekk fii te ñu nekk suñu borom oyofal liggéey bu baax a baax a baax suñu liggéey ndax am na sumb bu rëy boo xamante ne daanaka mbokk taal yi sumb nañ ko ñal na suñu borom def ay tawféex ñu motale ko bu bàgg bàgg bu baax a baax a baax barke Serigne Touba Mbacke jërëjëf di jaar mbokk taalibe yëpp nag jërëjëf. te kaddu yëpp nekk kaddu yu defar. waaw su ko defee ñu waa jublu si wàllu liggéey bi ndax soo ba léegi ñu ngi si waañ bi pour bëgg màggal sëñ Fallou gi jeg rek moo tax ñu nekk soo ba léegi si waañ bi démb ba léegi sax laay wax ndax démb nelawul dem ba 3 heures matin ñu ngi si wàllu liggéey bi dem jëli bagage yeeg yëpp ndax ki nu koy defal dañu koo jaral ndax moom moom yaakaar naa am na fay moom sëñ Fallou moom Fallou yaakaar naa Fallou ñëpp la su ko defee liggéey bi mbokk taal bi yëpp jàpp si muy wàllu jëriñ Baye yi yëpp ñëw taxaw si pour bëgg bës bi taaru rek loo war a tey ñëpp bàyyi seen yi tey ñëpp dagg lépp li ñuy def te xam ne ba fii ñu nekk nii daanaka liggéey mënu fi indi mais tey ji bésub sëñ Fallou bi tey képp kuy liggéey da tey sa place ñëw pour mën a jàpp si bés bi bés bi jàkk ñun nag danoo nekk ay ndaw ñoo wax mais nag lii il faut ñu sànni ko si ndax sëñ Fallou dana ko jaral du ñun dong la ko du ñun kese ñëpp la sëñ Fallou Fallum ñëpp la wasalaam